salaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal am mbégte dalal fii kii di suñu papa di xalif généralu euh, Cheikh Ahmadul Jimbira yaa ngi tudd Cheikh Saat bu Jimbira bàyyi ko depuis Kébémer ñëw fii fas yéene en tout cas dénku ñu jafe-jafe yoo xam ne am nga ko ci si alal bi nga am foofu ci Kébémer ñooy lay jaajëfal bu baax bàyyi la nga wax sénégalais yi fàttali leen yow yaay kan. asalaamaaleykum mbokki jullit yi asalaamaaleykum mbokki yàlla. sunu borom tabaraka wa taala julli ci yonent bi man maay cheikh Saad bu Jimbira di xalifa cheikh Mouhamadou Jimbira ci Kébémer eh, ma jógoon tey nag ñëw fii ndax am ay jafe-jafe ci samay suuf waaw jafe-jafe yooyu nag moo di dañoo jël samay tool jaay ma doole eh, indemnisé wuñu ma dello delloo wuñu ma samay tool moo tax ma ñëw tey fii nag ngir wax ko àddina bi yëpp yëg ko dañuy wax ni domaine national bu ko buur soxlaa jël loolu d'accord naa ci waaye domaine national bu jëlee sa alal na la dàmp na la delloo na la fay man nag fayuñu ma jël nañu samay suuf te samay këyitu leer nañ ñi laa yore këyit yaa ngi nii am naa délibération am naa plan wu euh, kii architecte am naa jugement boo xam ne depuis 1964. 1955. ah. 1955 boobu 1955 ñu jugé waat ko en 1964 dossier yaa ngi nii man dem naa ci sous-préfet bu Kébémer wax ko ko mu ne ma loolu du sa wàllam ma dem ci sous-préfet wu Ndande mu ne ma loolu du wàllam ma bëgg a xam na ku muy wàllam. dem naa ci maire demuma ci maire bi ci sous préfet bi laa dem ak préfet ak commandant Baro mi nga xam ne ñoo yore mbirum tool yi ak mbirum suuf yi ñoo moom moo ko yore chantier bi li ma bëgg nag mooy lenn rek lay samay tool nañu ma delloo sama suuf wala ñu indemniser ma moo tax ma ñëw fii wax président de la république ak képp koo xam ni mën ngaa yeggale message bi ci ma wax ko ni ko damaa bëgg lii rek moo ma indi ñaar rek ma naam ñu fay ma mbaa ñu delloo ma sama tool def ko nam meloon gas nañu ko yàq nañu ko miire nañu ko loolu mooy sama tànk tey fii ci Sénégal euh, euh, li ma bëgg laaj mooy samay këyit yu wóoru laa ndax këyit yi ma yor sous wu ndànd moo ko signé ak meeru wu ndànd ñoo ko signé këyit yu wala ba laa am yii coow yeneen yépp sama yoon nekkul ci ñoom waxuma seeni mbir lii nga xam ni dal na ma nag maa ngi koy ñaan gépp kilifa goo xam ni mën ngaa jot Macky Sall na ko wax message bii di ko wax di xamal lii sama xarit benn bakkan mu sëñ Muntaxa mbakke bu Tuubaa di sama wóllëre laa bëgg mu dimbali ma ci wax ak moom maa ngi wax ak xalifay Njaasaan maa ngi koy wax xalifa wu euh, maa ngi koy wax xalifa Kawlax képp ku ci man dara nañu wax ci Macky Sall ni ko nañu ma delloo samay suuf wala nañu ma fay. sa tool yi ñan lu tax nga jàpp moo ah, tool yi. waaw tool euh, bi euh, euh, arabe yi ñoo fi indi seen i maçon ak seen ciment ak seen yëpp. arabe yi waa arabe yi ci boppam. dirigé par le commandant Barrow moo fa indi ay maçon am jëlee leen Touba ñooy miire foofu. ñooy miire foofu euh, ñooy gas fondement di def lépp lépp a ngi ci loxol commandant Baro saa yu ko adressé téléphone wax ko ni ko def ni ma lool man li ñu ma sant laay def nee na buur ko wax ni ko mu dagg fii miire ko waaw loolu loolu lay def liggéeyam lay def li ci des yoonam nekku ci lii la ma tontu loolu moo tax nag léegi comme amatuma fenn fu ma jëm ma ñëw fii ci Sénégal nga xam ni dañ fee nekk ngir di Euh, waxal ndey woy néew nekkal fi ñeew doole yi moo tax ma ñëw fii ci yéen tey ndax xam naa ne bu ma ñëwee ci yéen di ngeen ma jimuli jàppale ma pub génneel ma lii bàddina bépp yëg ko maa ngi nuyu mbokki jullit yëpp di leen jéggul deen balu àq nag te xam ni dama damaa amatul benn pexe waaye lii gënalu waaye comme xaw ma fu ma jëm ma ñëw fii ci Sénégal mi nga xam ne moo yore kàddu woy néew doole yi ma ñëw wax ko samay mbir ngir mu taxawal ma ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.